woy bii nii Tafa. waaw euh, benn retour aux sources. Mhm. parce que te képp ku taxaw rek. soo ko yëgee ak soo ko yëgul sa ay maam ngay représenté. Mhm, mhm. waaw parce que deret deret dafa fort. Hmm, te loo xam ne la daal moom mooy nekk suñu suñu socle. nga xam ne foofu la ñuy taxaw pour pour pour pour dox ci àddina. Euh, waaw léegi euh, soo gisee damay damay souligner euh, les aspects de la tradition africaine en général. parce que tubaab yi bi ñu ñëwee coloniser ñu dafa am ñoom benn gis-gis boo xam ne ñoom c'est par rapport à leur propre tradition. léegi ce qui fait que ñun on a tendance à euh, sous-estimer li nga xam ne moom mooy suñu base dëggantaan suñu africanité. suñu fu ñu jógee effectivement suñu maam effectivement. te loolu tey fi mu toll nii waaw ah oui ah comme ni ma la ko doon waxee sànq mooy que ne euh, sama sama sama wàllu papa ñu ngi jóge caw Yerwaago nekk ay séeréer pur dur ah nekk Diouf a ñoo ko bàyyi Euh, soxna si sànq mu ngi may laaj naan mooy xobaay bi lan la xobaay bi lan la ma ko xobaay bi diminutif ñoo xobaay la. ah ñoxo bi nga dindi. waaw ñoo ñoo bi laa dindi bàyyi xobaay mu ngi noonu. pour imager ko quoi effectivement donc on peut dire que ay métaphores. effectivement mu ngi noonu. mais est-ce que mën nga ñu expliquer métaphores yi quoi pour ñu comprendre ko parce que euh, mu ngi tàmbali euh, ci ñoom bi ñuy jógee fajar. effectivement. mooy que ne suñuy maam ba ñuy jóg. pour nekk en harmonie avec le monde la. tu vois donc c' pas c' est benn affaire bu bu c' est pas de la vanité. Mm-hmm. ah c' des questions existentielles yoo xam ne mm-hmm. benn instant ëpp na. ëpp nañu koy tuutil mm-hmm. ëpp nañu koy tuutil parce que euh, mooy li ma la wax mooy que ne ku taxaw rek soo ko yëgee ak soo ko yëgul sa maam nga taxawal parce que deretam nga yor tu vois léegi xëy googu ñu xëy nag mooy que ne li nga xam ne moom la ñuy xaar si ñun moom mooy ngor euh, dévouement dévotion liggéey pour nga xam ne Afrique dootul nekk loo xam ne dañ koy yërëm. parce que Afrique ëpp naa yërëm. parce que Afrique moom mooy yaayu yaayu yaayu euh, gars suñu wax naan berceau de l'humanité léegi nag bon après benn instant dama doon jàngat un tout petit peu la poésie de Léopold Sédar Senghor après benn instant ma gis muy conceptualiser ay yenn ay yenn euh, idée comme euh, mu naan wax ne euh, la raison la raison est Hélène l'émotion est nègre. Ah. <laughs> bi ma ko njëkkee dégg ça m'avait choqué. Mhm. tu vois mais après bi ma toogee ma jàngat ko jàngat ko ba benn instant après j'ai vu que ne. Mhm. li nga xam ne moom mooy finalité wu wala li nga xam ne moom mooy cosaanu émotion. Mhm. c'est l'intuition. et l'africain c'est un être intuitif. Ah, ah, tu vois euh, warul am complexe si ki nga xam ne. Euh, mbiram yëpp affaire un plus un égale deux kese la parce que ñun yàlla dafa def que ne naturellement euh, nit ku ñuul dafa gëm yàlla naturellement naturellement soo gisee tey fi mu toll nii li nga xam ne moom la xeetu euh, doomu aadama bu ñuul li mu dajal ci àddina yëpp fi mu toll nii te pourtant da ngay génn fii gis gars yi di vivre ci ay conditions yu métti. mais à chaque fois da ngay gis énergie de vie. Ah, ah, ah. gars yi dañu am volonté de vivre. tu vois te loolu man pour man. moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, clé bi nga xam ne moom moo nekk ci catu pyramide bi. ok donc ce qui veut dire que. pour comprendre li ngay wax euh, jamono ngay woy. Ah, mais lépp yaa ngi ko rootee. effectivement ci samay ci ci profondeur histoire du Sénégal. li suñuy maam def. est-ce que kon woy bi am na similitude ak histoire du Souleymane mi nga ñu nettali ci album Couleur. effectivement oui. c'est un peu la même loolu loolu nga nekk di wax ni yow da dégg. <laughs> fàtte di fan si nga toogal je serai pas objectif voilà c'est pas l'animateur comme ça mais euh, euh, fan si bi moo toog di waxtaan ak parce que moi je sais xam nga xam nga lan moo garaaw xam naa loolu da nga koy fàtte parce que temps yi ngeen di def euh, RTS la télé est à nous longtemps ça ak Mariam Samba mu ngi noonu chaque jour suñu buntu biir nga doon romb. <laughs> yow yow daje nañ ba sonn. ay booy nañ ba sonn. ay bocc ngeen <laughs> Cowboy eh, dama doon tase dama doon romb ay ñoom Pape Djibril Fall ngeen romb yéen ay xale ngeen woon quoi mais ngeen faama nag xam naa <laughs> waaw dañ la faawoon loolu moom dëgg la parce que dem di génn télé di làkk français quoi effectivement effectivement loolu dëgg la mais bi jamono doxee